aousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi al amin sayidina wa mawlana muhammadin il makin wa ala alihi wa ashaabihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh barke bi yaa man ajaaba man istajaaba habli ijaaba fi zannidaa'i insha allah mbokk yi jullit yi ginnaaw bu ñu sante yàlla buur bi subhaanahu wa taala di julli ci yonenteem bu tedd bi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen di leen baal aq di leen baalu xaq tey ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mu boole nu jégal suñuy aq yu dox suñu digganteeg moom ak suñuy moroom jàmm tey nag xam naa vidéo bi vidéo bu gàtt lay doon rek incha allahu taala di leen xamal ne yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ci diwaanu dëkk bii di nga xam ne mooy ndakaaru te doon laajte ak doon wax ne war ngeen ñëw ndakaaru agsi nañu ndakaar incha allahu taala képp koo xamante ne nii yittewoo nga ñu rek man nga ñëw ci numéro bii di affiché su ko defee ñu tegtal euh, fii ñu nekk incha allahu taala bala ñoo delluwaat ci kàttan suñu borom kon yéen ñëpp ñu ngi leen di xamal ne jamono ji ñu ngi ndakaaru ci kàttanu yàlla képp ku ñuy teewoo rek incha allah man nga ñu woo ci numéro yooyu su ko defee ñu mën laa tegtal fi ñu nekk ci dakaar ci kàttan suñu borom bala ñoo delluwaat incha allah ñu ngi leen sant ci ànd bi ak ñun le grands secrets en wolof ak les meilleurs secrets ñaan yàlla barke lépp incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu